programme bi nga xam ne tey mooy yomul ashura bi man Thierno Kounkandé bés boobu noonu moo doon waajal gunjur di ko annoncé naan danaa xar géej tàggu si woon ma Demba tàggu si woon ma Samba samay nijaay tàggu waxu xamuñ ko samay soxna xamuñ ko amul benn journaliste boo xam ne oo na ne danaa xar géej man maa joloon sama décision ne dana xotti géej pour dimbali maanaam askan bi Sénégal ñu dem Europe waaye comme jur na fi coow yi neen yi coow bu mel nii gars yi di coow di coow yaa ngi dégg kon tey événement bi dañ koy reporté dañ koy reporté ci biir loolu tamit gis nañ ci tey ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi ciy profité pour bëgg si amaale occasion ñoo xam ne amuñ luñ def amuñ programme seen télé ku ci mel ni tey boo xoolee ay programme yoo xam ne yi bari si biir weer bii ni maanaam ay faux information créé nañ ko ci nee nañ Kounkandé daw na yéeg na si biir gaal bi dem di créé ay sos te àdduna bi yëpp xam nañ ne maa ngi suma kër téye suma njaboot di jàngale di jàngale xam-xam indiwaat nañ ay yeneen faux information naan Kounkandé xarum géej gi par force la bu ko deful dañ ko war a arrêté loolu ay karam faare la maanaam ay faux information la xam ne wérut ma ñëwaat tey am na tam benn journaliste ma gis boo xam ne amut lu mu def amul programme mu bind ma ne Kounkané dafa dem aéroport ñu teeku te man maa ngi sama biir kër gi am jàmm mm. ñi ma war a jékkanteel ñi nga xam ne xam nañ man man maay kan ñi nga xam ne yàlla boole na ma ak ñoom ay kilifa ma leen ni wan résultat ñu koy gis ñooñ xam nañ man may kan waaye tey natt naa Sénégal xool ba xam ne Sénégal naka ay borom xel newuñ fi hmm. yaa ngi dégg. Hmm. Hmm.